Amadou Sall nak ab SCI bu mag la am à Dubaï pour blanchiment de capitaux dans l'immobilier une société immobilière bu ubi commercial commerciale immobilière bu nek Dubaï pour le blanchiment de capitaux c'est un multimilliardaire amul ay a fukki milliards y ay des milliards la yore mom Amadou Sall bi milliards. Il 27 ans la am Il 28 ans milliards. Il yor ci ay milliards ken yoruk Il y a te milliards. fenn y a ko milliards. Il y a a mu ne ma y amul sax bac. mu a ma amul bac ma ne ko mënta nekk mu a ma laaj leen mu ne ki ma ko wax mu ne ma dama leen a xam amul bac ma ne ko mënta nekk dem na ji mu ne ma amul bac di jàng tuuti def bac benn yoon jàllul deuxième fois bi mi def bac ba mu am bac taqale ku jigéen ki mu ne ma seen xel yi neexul ko mënta nekk ma ne ko man musuma toppatoo ay âge bac jàng naam jàngul mu ne ma yurul dara te li wax jóge li ko indi mooy milliards yi mu yore ci ay milliards jeex léegi lan moo xew dafa am ci biir APR ñoo xam ne ay camp ñoo fa am Alioune Sall dafa am camp Amadou Ba am camp Marème fay Sall ak ñi nga xam ne euh, ñoo ànd ak moom di Mame Mbaye Niang euh, di Pape Malick Ndour ñoom ñoo bokk camp ay camp la dafa am camp wu Macky Sall camp wu Marème camp wu Alioune Sall camp wu Amadou Ba kan yooyu ñoo fa am yi gën a fës Antoine Diome mi ngi tabax camp mais dafa des moo tax ngeen koy gis muy dem Touba di génn joxe xaalis dafa nekk di tabax camp ci biir moom tamit pour am kan petit kan la ku nekk da ngay tabax sa petit camp ubbi leen seen bopp yi baax ngeen déglu ma li ma leen wax sans compter nek allié Idrissa sek mi nek ci biir Benno boko dafa am camp mi ngi tabax wa ben wa AFP Moustapha Niass dañu seni camp ñeneen ñi ñu yo seni donc lamb gu tas la gu jaxasoo goo xam ne du yomb ci ñoom loolu képp problème la ñu bëgg ci ubbi encore dossier Ousmane Sonko te lépp Marème Faye Sall moo nekk ci ginnaaw léegi mambay Prodac bi mu sàcc ni alal ji dafa nekk di ci tibb am ñum ciy jox ci biir Benno Bokk Yaakaar wala boog ci biir APR dafa am ay transhumants yoo xam ne PDS la ñu nekkoon doon jàppale Karim Wade génn di saaga Macky Sall lu nañu yekk ko ndax li mu teg Karim Wade tey ñoom ñu ci ëpp xës dagg foofee ñëw dugg APR ñëw dugg ci biir coalition bi ànd ak Macky Sall Macky Sall jox leen ay poste ay ndomba tànk léegi ñoom nag bi ñu bëgg def lubi ci biir benn bokk yaakaar ci biir nguur gi def seen lubi ay ancien PDS transhumant pour ñëw nag jël waa benn bokk yaakaar yi nga xam ne wala waa APR yi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ba ñuy xeex waa PDS yi ñu ànd ak Macky Sall mooy ñoom Pape Bouba Ndour mooy ñoom euh, ki jiite seen cogère bi mooy ñi nga xam ne ñoo ak Macky bañ ko dàqee 2008 ñu ànd moom ba 2012 ñu gaño ñoom ñooñee ñoom ñoo ne du ñu nangu ay ñoo xam ne PDS lañu nekkoon démb ba ñu daaneel leen ñu ñëw def transhumé ñëw transhumé dugg ci suñu biir parti ñëw def ay yëfi cogg ñëw nag bëgg ñoo puus nag bëgg a jël parti bi taxaw nag dañu wan nañu ñu dàq xeex léegi waa APR dañ leen di xeex léegi ma mbay moom mooy parrain bi ma mbay dafa parrain na transhumance yi jóge biir PDS da leen di jox xaalis di leen jàpp jàppale di leen dëgëral pour ñu am doole biir APR am ñeneen ñu taxaw biir APR di xeex na loolu du fi am parce que ñun ñoo fi nekkoon del xool saa suñu génnee di dal ci kaw Ousmane Sonko wala ñuy jéem wax yu kenn xamul dangay gis ne ñi leen di tontu ci seen biir lay jóge ñu nekk biir APR authentique ñi nga xam ne ñoo nekkoon nag Macky Sall ba mu falagul ñooy génn tontu transhumant yi ndax ñoom bëgguñu transhumant yi parce que ay ba Macky Sall dugaat ci guute suba ñu génnaat dem seeti Ousmane Sonko wala keneen ne ko mën ngaa troisième mandat mën ngaa troisième mandat loolu mooy seen métier parce que xaalis jigéen sexe drogue ak rock and roll loolu képp moo ne seen bopp yi seen bopp yi ndox niwu ci nguur la ñu bëgg di nguuru jaaxal porte plainte Ousmane Sonko ji ay diffamation la ko indil mais mare ma nekk ci ginnaaw lolu motax Mariam tënk ko suñ tool ni makki muñ a def dara Mariam a nekk ci korom pour juge yi jël juge yi teg tout ça di manipuler Macky Sall Macky Sall di dugg ci loo xam xam ne mooy jabaru Macky Sall lu ñuy def ci réew mi ci lu bon loxoom na nga ci biir covid bi mille milliards yi du mujj fenn donte bayee yi ñoom ñoo joxe seen xaalis ne fépp fu ñu dugal suñu quatre cent cinquante milliards ci covid bi ci sur les six cent et quelques il faut que mu leer il faut que mu am rapport Cour des Cour des comptes def na liggéey bu leer boo xam ne def nañ ko dañu ko jéem a naxe Cour des comptes liggéey bi mu def bailleur de fonds yi tubaab yi ba ñuy joxe xaalis bi ñoo ne bu ñu dugalee suñu alal ci Covid bi bu ëllëgee di ngeen ñu rendre compte di ngeen def bi moo tax ngeen ñun ñi jot ci tubaab yi ñi nga xam ne ñoo ngi seen alal ñoko taxaw mais bu doon ñu nak mag Sall kep du ko mos def te ba rapport bi génnee ba légui def fu ñu jël bo démé Mali am na ñu jàpp tëj am na ñoo xam 9 milliards lañ ci wara fay kenn ku ne ñu ngi lay top Mauritanie Mali Guinée fo ci dem ña def seen ay audit tuba yaa taxaw Sénégal Sénégal ñoom ne leen dañuy def inspection dañuy def ay enquête di tappal yi kenn xamul mais tubaab yaa ngi seen ginnaaw koy valide jox Macky Macky jël décret bi signé Marème mooy falaate mooy folliwaate loolu moo tax dara dox ci réew mi lu yàqu ci réew mi Marème Faye Sall te Marème bopp bi kopp nekk ci Amadou Ba nag li Mame def neexu ko rapport Prodac bi am na rapport bi dafa am bu authentique rapport bi am na njuut njaaj ji am na maa nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar moo tax xeex boobu mal réew mi ñu ay intellectuel réew mi nga xam ne ñooy tokki télé yi wax ba jeex ku nekk naan expert la en la matière réew moo xam na ñépp ay docteur lañu docteur en docteur docteur réew moom Marième Faye Sall mi nga xam ne bopp bi ndox néew ci muy lacci lacci jóg daanu ba sampal leen Macky Sall ci bopp réew mi ku war ngaa mën a xalaat fal sa mag muy Mansour Faye mi nga xam ne ndox néew ci c'est normal parce que soo ko waxee ngeen mer ah, Macky Sall dafa feebar loolu ñi ko xam jege ko xam nañ lool daañu ko nëbb na camoufler ko parce que Macky Sall bu feebaree dafa am ay conséquences ci ñu réew mi doxee parce que président bu demee ba feebar mënatul yor réew mi dafa am nañ koy constaté dañuy ut médecin ñu constaté ne kii mënatul yor réew mi il plus apte su boobaa dañ koy wàcc loolu président yi bëgguñu ko mo dañ koy nëbb mais tax même donc da gis ne boo nekkee président te bëgg wàcc am lu xeex loolu mooy li xew biir benn boo ko yaakaar actuellement ni Mariam Faye Sall moo jaxase carte yi transhumant yi ñi ngi xuloog a waa yi waa benn boo ko yaakaar allié yi ñi ngi famille bi ñi ngi xuloo Sall ma ngay xëccoo ak euh, maasu fay pour moom maasul du fi toog moom mu nekk fi ndax lekk naan na ci gaz bi ba màndi moom it ma ngay teg ay lubéyam Amadou Ba nga xam ne mooy euh, sëriñ euh, sëriñ xaat naa tudd bi xam nu mu tudd waa Touba yooyu xamatuma nu mu tudd sax mais ñoom ñaar daal ñoo tax ñoo si ñëwoon parti bi ak Macky Sall ak sa Seck seigne Moussa Nawel Moussa Nawel seigne muntaha mbake Idrissa Seck ak Macky Sall ñu signé pacte 2024 moy nek sen candidat Benno boko yakkat li li motax Idrissa Seck fekki Macky Sall tay eh, nak Macky Sall mi ngi koy war sans compter nak négociation bi nga Abdoulaye Wade mom bi nga ak Macky Sall condition yi Macky Sall bëgg Abdoulaye Wade d'accord na ci mais Karim moom àndu ci mooy amnistie ak yu kenn xamul Karim nee na bëgguma amnistie révision procès la bëgg te révision procès xaju fi te am ñi ngi wax nag pare guñu mais Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñi ngi wax pour kaawu Karim Wade mais Macky Sall ak Khalifa Sall ñi ngi wax lu leer laa leen wax Khalifa Sall mi ngi si ak Macky Sall loolu na ko Ousmane Sonko xam bu baax a baax a baax a baax ak Khalifa Sall ñu ngi wax lu leer lay leen wax ay yeneen mbir la yoo xam ne il faut que Macky Sall jikko kon Macky Sall da gis ne moom lépp ma jaxasoo te buntu yépp moo ko ubbi moo xañ Karim moo xañ Khalifa mo wax bëgg a xañ Ousmane Sonko mo bëgg a xañ Amadou Ba mo bëgg a xañ moo bëgg a xañ moo bëgg a mo jaxé sa carte gi mo dégg Idrissa Seck war ko mo ki lépp buntu yi Macky Sall njuut njaaj yi mu doon def yépp ñaan expert la Macky Sall génie politique la dafa ay lu mat dagg ko ba mu fi toogee ba léegi lu mu def léegi nag lépp wëlbatiku nag xëpp ci kawam nag ndax yëkkati boo gis dafay am daaneel dafa toll ci daaneel nag léegi nag dafa jeexal lam doon njuuj njaaj yëpp xëppi na jóg taxaw nag tiim ko mu am jafe-jafe loolu ko jàpp fi mu toll nii da ngeen ko gis mu génn da ngeen ko gis mu def lii léegi waaye wérul dafa feebar fi mu toll nii feebar bu garaaw nekk ci moom moom Macky Sall loolu lépp nag su ma leen koy wax pour ngeen xam xam du xam ba noppi dem tëdd de dem julli yàlla may ñu lii yàlla mag sàll yàlla amul lu mu leen ci ndóol ngeen di dee parce que ñemewul dana a xeex te ku dul xeex du am dara bés bu nekk ma wax leen ko secret amul secret àdduna xeex la ku mënta xeex du lekk c'est tout kon loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci seen biir biir APR waaye jafe-jafe yi nekkul foofu kese jafe-jafe yaa ngi ci biir armée bi dama leen di wax li nekk ci armée bi jafe-jafe yi nekk ci armée bi xuloo yi nekk ci armée bi jaxasee gi Macky Sall jaxase armée bi jaxase police bi jaxase magistrature bi lépp la Macky Sall jaxase te lépp Marème Faye Sall nekk ci ginnaawam ndax li ko neex dong la xam xamuñu état dañuy bëgg benn mbir ne jëlal nit tegal ma ko fa mu defal ma li ma bëgg ñoom noonu la ñuy gérer état dama am ku ma bëgg a bi jëlal juge bi tegal ma ko fa mu rendil ma ko dafa am ku ma bëgg reen rendi juge bi ne ànduma ci teggi ko teg ko ku ko bëgg def dafa am ku xaalis mu bëgg sàcc wala ku jege man ku sàcc alal ñu bëgg ko yóbbu ci yoon ñu ne bu mu ko àtte bu ko naree àtte nañ jël koo xam ne da koy bàyyi mu dem ñu teg ko fa noonu la Marième Faye Sall yi doxalee moo tax réew mi teguwul ci yoon léegi nag ñi tokki télé yi di wax di fen TFM 2STV yeeg seen télé yooyu seen émission bidon yooyu ku nekk di fen di wax a wax ba giya démb maa ngi xool TFM par hasard maa ngi fa fekk ñoom ñuy wax bu Charles waxee ba noppi jox kanati encore Badara Gadiaga su Badara Gadiaga pare ñu jox Amadou Thiam tuxkatu yàmba nga xam ne moom tux na yàmba ba dof ci centre psychiatrique yi lañ ko yóbbu ñaawlu ay bis yu ñu tojo ci loolu jàmbur yu ñu jàq ki ay téléphone yu ñu sàcc da ngeen am sens yéen ngi toog ci télé bi boo liggéey ci télé bi la leen fekk yéen bu ñu jóg ñu ngi jóg lii raam ci télé la leen fekk doomee xaraam yi ngeen waroon a nekk ca révolution ba nekk ca xeex ba futteeku sol seen i kilo di xeex ngeen toog ki télé yi climat yi di fen guddi ak bëccëg di joxe ay euh, bon note ak ay mauvaise note lii baax na lii baaxul yéene kan yéen ñu toog te euh, jàkkaarloo di jàkkaarloo si di duul yéene ñan jéggal leen ma ci kàddu yi yéene ñan di fen yéenay ñan yéen ñi ma tudd fii Charles yaay kan yow bay joxe ay leçon de morale lu baax ak lu baaxul dama leen di laaj yéen fan ngeen toj bay toog ci télé yi Sénégal a yàqu Marème Faye Sall la ko jiite moo tax ngeen toog ci télé yi duñu yàpp toog ci télé yi di fen guddeeg bëccëg oui na nañoo xeex mais bu ñu toj fan ngeen a gisee xeex ba amul toj doomee xaraam yi fan ngeen gisee xeex bu amul toj ci àdduna wax leen ma ko fan ngeen gisee xeex bu amul toj ci àdduna bi wax leen ma ko dëkk bu mu am ngeen wax ma ko doome xaraam yi doon naafeq yi yéen waa TFM laay waxal wax leen ma fan xam ne toj amu ak yàq wax leen ma ko dama leen xeexi ci mbedd mi la soxlaa fii amul alal ju ñu fiy korkoral lépp la ñuy taal mu tàkk doome xaram yi ngeen doon ñun yéen a tal ay alal parce que yéen yéen a ngi lekk di naan ñu ngi leen di jox xaalis alal réew mi ngeen koy lekk toog ci télé Youssou Ndour bi di fen guddi ak bëccëg di tàgg Youssou Ndour doome xaram yi parce que moo leen jox li ngeen lekk fan la ko jëlee wax na leen ko naka la Youssou Ndour def ba di leen fay wax na leen ko doome xaram yi ngeen jàpp Sénégalais jàpp leen ay làppatu toog di yàq Ousmane Sonko lu ne ah moo tax bu ba ne leen yéen wax ji waxu leen ko li ngeen war a wax mooy troisième mandat bi ñuy wax buuba wax na dëgg ndax yàlla du tëj bu tëj fenêtre ba ngeen toogee complot Ousmane Sonko ci télé bi buuba jóg moom taxaw ne leen yéen li ngeen war a wax leen ko tax ba mu ko waxee nga gis caam mandé que tukkatu yàmbaa bi tux na yàmbaa ba gémmiñ gaa ngi ci ginnaaw bopp bi mu naan ko yow yow buuba yow xanaa Ousmane Sonko nga àndal da nga def ma gis nga ma ngay tëb soir quelqu'un tëj ko ci këram kii mais colonel euh, major Kandji moo mën a duul li muy wax du indi benn disposition juridique naan wuy loolu bu ñu la ko defee léegi am nga droit def li nga tuddee mooy EPR xaw ma lan excès de pouvoir xaw ma lan def def def rep rep xam nga ay expression la ñu toog télé yi di leen ko sànni yaakaar naa ay mais nag du ngeen ay nit ay làpp te ngeen moo tax kan ji toog télé bi naan wuy euh, OPJ bi xam ngeen luy OPJ ay expression ma ma xoolee ma ne Sénégal li ay nit bi léegi major Kandji mi dafa yeb Sénégalais kii bu nekkoon ci dëkk tubaab yi ci duus yi yi lañ koy teg muy raxas duus duul xamu ko ngeen jéggal ma ci kàddu yi mu toog ci TFM gi di fenn Sénégalais yi mais avec une condescendance napp ñoom Boubacar ñoom ñoom Badara Gadiaga Badara Gadiaga li mu doon wax dëgg mais Kandji da koo napp xooqatal ko di ko wan ne xamu leen bàyyi leen toog di wax loo xam ka Kandji il se prend pour un expert. moom moo xam droit. moom moo xam code de procédure pénale moom moo xam code pénal moom moo xam code civil moom moo xam le code des c'est pas possible jekk-jekk rek tëj la sa kër wala sa kii na doo génn xam nga lan mooy OPJ un OPJ c'est un officier de police judiciaire il est chargé d'enquêter un enquêteur n'a pas le droit de faire sa kër tëj la sa kër défaut Tino enquête amul enquêteur bi nga xam ne moo lay téye tëj la ki sa kër enquêteur boobu sans un acte administratif ça peut être une loi, ça peut être une ordonnance, ça peut être un arrêté, ça peut être une note, ça peut être une circulaire. On ne peut pas agir dans, notre architecture normative de nous organiser l'État. L'État doit être parce que Sénégalais de police judiciaire ou bien un préfet mën na jékki-jékki toog fi mu toog Ousmane Sonko këram mais vous vous rendez compte ñu ne ko yow li ngay wax amul nga ba dala gajaga di ko demande ci yoon laa koy teg laa ko indil ay argu lam leen wax yëpp indiwul benn disposition juridique ni du code pénal ni du code de procédure pénale ni du droit administratif sénégalais fo xamna na fa lay sukkandiku na article bi moo may préfet mu tëj Ousmane Sonko kërëm wala article bi moo may officier de police judiciaire bi mu tëj Ousmane Sonko kërëm amul da ngeen dégg benn yoon fu ko fu ko fu ko fu ko fu ko major Kandji waxee dans un état de droit on ne décrète pas les décisions les décrets on les prend suivant un dispositif C'est génn ñu ko doo dem say doom da jàng ko pamte pamte jàpp ko yëkkati pour yóbbu Kaolack ci turian gum turian suuf jaar lu mu taxaw wax major kanji bi doon toog télé bi démb di fenn bañ ko fekkee këram yëkkati ko ne ko dañ la yóbbu Kaolack dañ laa soxla commissaire parce que da ngaa jaay suuf sox xam ne terrain jaamul suuf si baaxul turiñaa nga lu mu def gis ngeen ko télé bi lan la wax lu mu laaj daf ne du ngeen ma pamte pamte yóbbu ma da ngeen may indil convocation major kàddu yi parce que doomeram la fenkat la yàq Sénégal moom mii wax loolu keneen bañ ko fekkee këram takk ko ba mu ne kodd comme ni ñuy jàppee Guy Marius dugg ci kër rek jàpp yóbbu bañ ko ko defee moom dafa taxaw génne fetal ne du ma dem woo commi woo commissaire bi woo ay supérieur gars yi tànk parce que ñoom ñëpp a yem mafia lañu ba ni ñu def Sénégalais yi bañ ko ko bëgg a def moom këram dafa taxaw lànk te dañuy fekk ni ñuy yéen seen kër Sonko na Ousmane Sonko Sénégalais comme ñëpp dafa il est justiciable mais Major Kandji moom il n'est pas justiciable moom moom moo gën a fort Ousmane Sonko moom allez voilà les mots mu ne am nañ saa dama leen doon dóor bal ñu dee parce que man kenn du ma fekk sama kër di ma toroxal ah moom moom moom fan la ko toroxal léegi mais Ousmane Sonko ko toroxal mën nañ ko dikkëram ne ko doo génn doo julli ji doo sawi doo dem conférence doo dem sa siège doo dara moom mu taxaw télé bi di layal loolu moom li li ñuy bañal boppam moom loolu lay nangul Ousmane Sonko Ousmane Sonko mën nañ ko saax saaxe Ousmane Sonko mën nañ ko pam tabax Ousmane Sonko nga xam ne ay millions sénégalais ñoo koy xaar pour tabax réew mi moom colonel Kandji kenn xamu ko kenn xamu ko tojul fenn doon ngay wax fekkee ci droit la ci ci élection nga dem ci code électoral ba su fekkee ci affaire euh, enquête ki yooyu nga dem ci code de procédure pénale su fekkee ci ay daan la nga dem ci code pénal lu ci nekk dafa am code bu ñu taxawal boo xam ne moo lay wax juge bi ni muy def juge bi amul droit di def ci ay xalaatam Macky Sall amul droit di def ci ay xalaatam man mii amul droit di def samay xalaat ak lañu nekk réew moo xam ne nga toog sa kër la eh, tey doo génn ah. ku la jox préfet ne loolu amul sax Corée du Nord. Corée du Nord le régime le plus dictatorial au monde loolu amul fa le préfet du ko def préfet ba fa nekk du ko def. nga jékki-jékki ñëw sa kër doo ko amul ko rek major Kanji su ma fa toogoon bille seen télé yi nañu juum benn bis ba def seen ay wax ay seen émission

loolu rek mooy kii léegi nag enquête bi ñu ko dénk moom OPJ bi dafa làmboo Ousmane Sonko am na nu yoon encadré ba moom OPJ bi mu mën a réduire restreindre les libertés de Ousmane Sonko dans le cadre de l'enquête su fekkante ne Ousmane dafa am enquête bu nekk ci moom am na loo pamti pamte ko waa sûreté urbaine bu Dakar ñoo ko pamti pamte jàpp ko këram na dañ ko yóbbu Kaolack yóbbu ko commissaire bi dafa taxaw génn fatal na dama leen ni rey loo xam ne dafa lëj léegi fekk ko fa il paraît dañ ko convoqué bañ ñu jëli ko par force pour yóbbu ko ci commissaire bi mu ne kenn du ko pamte pamte dañ ko toroxal ci diggu njabootam génne fatal na ku ko def ma rey la moom commissaire moom loolu kànc naa xam amatul lu muy def ak lu muy def ci dossier bi na ci dossier bi nekkatul dossier am pare na ci kon Ousmane benn dossier ko. benn enquête nekkatul ci noonu dem enquête ba jeexal tëj nañ ko léegi ku mel noonu naka lañ ko tëjee këram bi bu ko bu bi. commissariat ci réew mi est-ce que benn OPJ mën na jékki-jékki rek xëy rek ne Ousmane Sonko yow doo génn seen mais vous vous rendez compte n'importe quel politique toog télé bi yor làmmiñam rëy ay expression boo waxee mu ay EPR ay wax OPJ leen indil ay expression yoo xam ne parce que xam na ne xamu leen ko mu dox seen maayam OPJ OPJ c'est un officier un simple policier ou gendarme Vous n'êtes que des commerce yi nga xam ne mooy def les enquêtes préliminaires ko ak préfet bi am le droit jël un arrêté préfectoral mais préfet bi mu wax Moi, le préfet est un administrateur civil. Il est dans l'administration centrale. Le préfet ne peut prendre aucun acte ñëw ci loi yi ñëw ci décret yi ñëw ci ordonnance yi ñëw ci arrêté yi ñëw ci ah, note administrative yi ñëw ci circulaire yi su xamul la hiérarchie des normes muy wëndilu oui mais grand bi dañu doon philosophe la woon que kenn ku nekk di wax ak papis mi nga xam ne day naan tattukatu naankatu sàngara yi fiir xale yi ñu toog bu banduur moo ci xaw a tane léegi li mu jaar ci digg bi ñu toog nag di xawaare c'est ça le Sénégal en miniature le Sénégal de la médiocrité ils ne sont ni dans la science ni dans le droit c'est ça le Sénégal et ça me fait mal ça me fend le cœur parce que ils ne sont pas dans la science ku nekk di wax ñuy xawaare jàkkaarloo effectivement tur bi ça correspond à l'émission Yakarlo yuuxu kenn ko y di wax parce que beaucoup tax télé dama ci sama xol parce que duñu wax ci xam-xam dañuy sénégalais parce que sénégalais un rigueur concept ay ay ay ay formule ay lakki tubaab ay fiche wi wii kiri mais mais les démb démb ñom seen émission bi wax nañ ba mu jeex déggul leen fa ben article buñ fa génne déggul leen fa ben ben code bu fa major yi Kandji génne major yi déggul leen ko ben yoon wax code pénal li la wax code de procédure li la wax en son article x bo demee ca x ci article ba x ba lii ak li la wax en matière donc de privation de liberté doo dégg ko major duñ ko wax de duñu cité ben article duñu cité ben loi duñu cité ben dégg nga maam code électoral ben code électoral wala code bu mën doon duñu cité dara dañuy toog di wax lu leen neex di wax lu leen neex parce que yéen a ngi déglu cinq mille personnes six mille personnes man mii leen wax lu leen njëriñ mënu am mille personnes yu ma seetaan man mille duñu ma seetaan mais ñoom bu ñu taalee daañu am dix mille personnes yu leen di déglu te wallahi azim li may wax moo moo moo gën a nekk xam-xam la ñuy wax ñoom mais man duñ ma déglu ñoom yéen ñooñu ngeen bëgg dañuy tappale moo tax ma ne leen moytu leen télé yi bàyyi leen télé yi ci noon yi lañu bokk taal bi ñuy taal toj bi ñu toj télé yi ci lañu war a bokk tànk tojuñu télé yi fay télé yi lakk télé yi seen xel yi du jóge ci ràgg Cheikh Anta nee na seen xel yi dañoo ràgg ba ko seex Anta waxee ba léegi kenn xamu ñaata at la tey la seen xel yi gën a ràgg xel yi lekk ñu suruñu parce que xel yi li ñu leen di moo baaxul mooy ay jàkkaarloo ki ay wax saxalaate ki ay tësa ki ay gine ki ay yu kenn xamul ñu toog ci plateau télé yëpp ñi ci ëpp quatre vingt dix pour cent bi xamuñu dara xamuñu lu ñu wax wala si ëpp làmmiñ ay ngeera ki ay caxata ki salaana ki la ñuy invité télé yi ku yor seenu làmmiñ wu rëy ku la dàq ŋàppiku ku la gën a mën a yuuku dàq la fukk gitaabal yàkkata ne moo lépp xam-xam réew yi fu mu jëm fan ngeen jëm lii ma leen di wax du ngeen ko dégg ci benn télé du Walfadjri du TFM du amul benn télé bu may accident dugg ci cliquer gis ci wala ñu tagee ma ci ma dugg fekk fa ñu fay wax science amul fu malaat ku ko fekk muy tagg ab tukkatu yàmba ba nekkee limaamu laay bi vet ba moo daan philosophé doxaan suñu gel après loolu day xam-xam télévision ngeen takk ko Sénégal gépp leen soto temps télévision ni mu seere ngeen wax ay gele ki doxaan ki maa ne Sénégal léegi tàkk di brûler li ma ci gën a naqari ngeen toog ne di condamné naan oui on peut se dañu war a xeex contre troisième mandat mais waruñu toj alalu jàmbur yi ay alal ngeen topp da matériel réew mi yëpp la taal yéen ko wax télé bu ñu leen fekkee bu subaa essence la ñu toog seen ñi koy wax ci télé bi toog dañu jox jox ay leçon moo tax ñu gën a xam lu baax oui l'avenir du pays sama doom bi def na ma lii ma papa xaw ma Ousmane Sonko mo waxoon gàtsa gàtsa léegi ñu ne lan doom bi nee def nako papa yarma yarma mais vous vous rendez compte toog télé bi quoi parce que y avait personne dans la contradiction waa passé fi boycotté nañ TFM vous avez parfaitement raison utiwu leen fa dara parce que bu leen fa demat bàyyi leen télé yi mais nak nga defar seen communication yeen tamit li ma leen wax bari na mais du tay deng nga oui néna caam tuxkati yàmbaa bi ñu ne oui intellectuel la philosophe la doom bi ne na ko papa xawma lan gàtt sa gàtt mais il faut papa ngeen def euh, yarma yarma ku ñu yar ah yow sa doom nga yar caam sa yow sa doom loo ko jàngal yow sa doom jàngaloo ko dara ba mu xëy na la papa yarma yarma kon kon ko wax télé bi de papa il faut ngeen def yarma yarma kon yow sa dom ba bim nan la papa yar ma yar ba bi gat sa gat sa gi ñëw sa dom yarawul ndax yarawul parce que bobu yaangi tukh yamba te yow sa dom boko yar loko jangal tukh yamba goko jangal ak doxaan ak nangu gelu jàmbur yi loolu donc fu ma la wax domi harami yi ngeen fa nekk doxaan gelu jàmbur nan sangara ki wiski tukh yamba ngeen yare sen domi domi harami ngeen avenir dañ ko wara defar mais nak heureusement Bouba Ndour rebondir dans le bon sens Bouba Ndour ne len l'avenir de ce pays ce n'est pas Macky Sall l'avenir de ce pays ce n'est pas Ousmane Sonko l'avenir de ce pays c'est la démocratie le respect de la loi la l'avenir de ce pays c'est pas yow li la sa doom bi wax avenir réew mi nekkul ci nit avenir réew mi ay principe la ay norme la yoo xam dañ ko fi teg ñëpp tegu ci amul kumba am nday kumba am ndaay loolu mooy ëllëgu Sénégal mais ay doomi daam lañ kenn du ko wax ci télé yi ñoom ñëpp na nga fa toog ko wax buubaa ci xaw a tane parce que da ngeen da ngeen a namp ci naafeq réew mi ku la gën a naafeq li ngeen gëm dara du ci dëgg li ngeen di wootante seen biir dara du ci dëgg li ngeen di dem leen teg dara du ci dëgg li ngeen di dara du ci dëgg ku ci wiir jiw sa ku ci yekk sa rendi ko ku ci sa morom dénk alal mu lekk ko ku ngeen seq jigéen ngeen reyante ku gën sëriñ ngeen bëggante wu leen du dëgg parce que naa seq ci ngeen màgg namp ji ba kenn du wax sa morom dëgg kenn du tiim sa morom wax ko ba ki télé bi da ciy fay major kaa ji toog di fen rek ngeen bàyyi ko muy fen dem na sax ba fëgg dënam oui bi gal Badara a jubbanti parce que Badara Gadiaga gis naa ko bi mu wax kànji da ko artu mu noppi mais bi parole bi tourné bàyyi ko fa yónnee nañu ko ay message ci téléphone am Badara a am na ku ko jox ay message xamal na ko li nga taxaw moo baax insisté jox ko disposition yi wax ko ne ko kànji day fen insisté moo tax bi mu parole mu ne fi ma taxawal laay taxawaat insisté waat di cokkaas kànji xool ba xam kànji dina génnaat waaye dafa coupé la poire en deux mooy dafa jox Ousmane Sonko tooñ giñ ko tooñ ba noppi nag daal di jox nag beneen tooñ daal di jox wàllu Macky Sall ngeen gis Majoro na ko d'accord na parce que léegi coupé na la poire en am na lu mu jox Ousmane Sonko am na lu mu jox Macky Sall nga gis Majoro Kandji ne ko d'accord na parce que Majoro Kandji day politique c'est un politicien c'est pas un homme de science bàyyi leen télé yi tey ñëw ci live yi leen amal njariñ di ko partager di ci woo sen nit ñeeg seen mbokk yi ñëw di tew di déglu di yeewu di xam ñu bàyyi naxaate bi réew mi dof ko tabax ay xel yu yewoo koy tabax xel yu ñëw xel yu ñu waajal xel yoo xam ne xam-xam moo ci nekk di xel yi bëgguñu ay xelu làppato ay ñuy toog di xaar yàlla ki ay dem dëkk jàmm gën a ki ay di ñaan ak tëfle ki sëriñ ak yooyu tabaxul réew mi seen sëriñ ci ku ci feebar ñu jaga jaga yóbbu ci avion yóbbu yu dëkk tubaab bi dëkk yi nga xam ne xaaruñu yàlla amuñu ay kàcce yu tudd jàmm gën taf taxawuñu yor seen loxo di tëfle ka ñaan ak di ci sëriñ bu seen sëriñ ci feebaree foofu lañ leen di faje ji mbay si Mansour nga ci dëkk tubaab bi ñuy faj te pourtant bu ñëwee Tiwaawan ngeen di buuxante ku nekk na ko ñaanal yéen ñi Mbaye Sine Mansour di ñaanal moom Mbaye Sine Mansour bu feebaree tubaab yee ko ñaanal ke tubaab yi dem faju ji kañ ngeen nekk ay nit yeewu il faut ngeen nekk nit yeewu wala ngeen continuer nekk ay dof ba faw bàyyi leen télé yi même wal fajri amul njariñ wal fajri ñi ngi xeex mais seen émission yi ay balancé ki ay PC ki ay libre ki ay génn wàllu walaati diwlin ki yooyu yëpp ay caaxaan la xam-xam du fa génne mbalalal ju dul jeex c'est pas des hommes de science duñu préparer seen émission yi ils sont spécialisés en rien du tout ndax koy taxal télé bëgg def ay émission juridique ay émission économique ay émission politique te yow tu ne lii te amuloo benn science ci science politique amuloo benn science ci wàllu juridique amuloo benn science ci wàllu droit amuloo benn science ci wàllu économie yow mi toog yow mi yow moo tax émission yi mënut a am njëriñ parce que seen émission yi tax amul njëriñ kii def émission bi amul xam-xam yor na làmmiñam mën na wax rek ñu teg ko télé bi muy wax la ay ndeere ki ay yu gën deere ki ay yu gën xam ñoo xam ne kenn xam fuñu jógee amuñu xam-xam ci dara mais yor nañu suñu làmmiñ so sont ils s'habillent un peu correct ñoo toog xaw a silvi si tuuti toog ñu jox leen émission yi ñoom ñooy tànn seen i invité ñooy xool diw ah kii de saako gerte bi ah bii de ba baax na moom ah bi ñebele tey tey ñebele ñu indi ah non suba gerte laa gannaaw suba nëxal laa tànn dañu xool fiche yi xool critères yi xool compétence yi émission bi ñu tëgg ko ci ay thèmes am ay thématiques yu intéressantes ñu ne tey kat ci wàllu santé la ñuy wax il nous faut des médecins il nous faut des experts il nous faut des gestionnaires en santé publique il nous faut waaye yow mi koy def yow journaliste bi invité yow nga am ay compétences ci wàllu journalisme de la santé nga am ci ay domaines préparé def ay fiche ba bu émission bi tàmbalee nga xam les questions yi nga war a poser ni nga war a relancer ak émission bi foo ko jëmee mais yow bu ñuy wax géej di nga ci wax bu ñuy wax yéet di nga ci wax ceebu ñebbe di nga ci wax cere lu ñu wax nga wax ci yow journaliste bi yow amuloo compétence ci dara léegi-léegi sax da ngay ci biir émission bi ne journaliste bi xam ne moo war a orienté débat bi war a relancer débat a indi thème yi war ko kii mu kii moom journaliste bi amul xam-xam moom ci boppam mooy yàq émission bi moo tax ma ne bàyyi leen télé yi parce que dañ leen di désapprendre dañ leen di abrutir dañ leen di assujettir dañuy yàq seen xel yi télé yi ñooy di gën a dangereux ci Sénégal seen télévision yi bàyyi leen télé yi seen débat yëpp débat politique la xëccoo doo ci jëlee dara ki far ak Pastef li jariñ Pastef dong lay wax ki ànd ak Macky Sall li wax ànd ak Macky Sall dong lay wax par parloo kenn ku ci nekk sa camp ngay défendre waaye jël science teg ko ci kaw taabal ji mu leer dëgg xam nga dëgg moom amul dëkkul fenn dëgg dëgg dëkkul ci camp Ousmane Sonko dëkkul ci camp Macky Sall dëgg moom xam ngeen fu mu dëkk ci intérêt askan wi ñi ñuy waxal askan wa ñoo ñëw moom dëgg mais jafe na gi Sénégal nga ñëw taxaw ci télévision bi di wax loo xam ne sa àqulaahi taala moo tax nga di ko wax di wax loo xam ne science la mais ngay wax loo xam ne du nekkul intérêt A wala intérêt B waaye intérêt AB la a AB mooy le grand ensemble la factorisation le grand ensemble A plus B seeni intérêt ñëw ñu ngay wax bokkul ak ki nga xam ne moom bu ñëwee ci grand ensemble bi ci A rek lay wax parce que A la faral keneen ki ñëw ci biir ensemble bi ne man B laa faral B laay wax yow nga ñëw nag

major Kandji dara Djangoul, jongul du dara amul xam-xam mais doful il est hyper rusé et futé dafa am dafa futé rusé moy day ñëw ci plateau à chaque fois su je ci plateau yi dina ba plateau bi mi dem dina fexé ba mom moi fay tane xam nga euh, au pays des aveugles les borgnes sont des rois lay def mais ma ngi ñaan bis bu émission amatee boo xam ne Major Kandji da cay bokk na ngeen fexe Pastef ba envoyé ko Demba Ngagne Demba Touré dembature Demba Touré moom doo El Hadj Diouf dootul bokk ak moom plateau képp kuy taxaw di wax ci wàllu question de droit science politique te ko plateau télévision yi yéen Pastef képp ku yor làmmiñam ku mel ne ay Major Kandji ay El Hadj Diouf fekk ay ay colonel Kayta ay colonel Kayta dootuñu ko dolli ku ci yor làmmiñ réew di fen dit oui, c'est un procédurier, nous sommes des officiers, nous sommes des commissaires, nous, nous, nous, peut-être pas. Xam nga ñoom dafa bari ñoo xam seen titre lañuy motaliko amuñu xam-xam mais fexé nañu ba am ay titre commissaire là major là adjudant là policier là ministre là ñom loolu lañuy motaliko ci xam-xam mais lay tax ñu nek lolé teguwul ci xam-xam ci complaisance lay tegu ak ci xaritoo ak ci kumba ndey kumba amul ndey ba ñu am ci ndom ba tànk léegi nag bu ñu leen joxee ndomba tànk yi ñu dugg nag war a firndeel askan ne ndomba tànk yi ñu leen jox kat mérité nañ ko ndax am na nañu xam-xam bi ta ku wax feeñ bo len wax loo da ngay xam ne amunu amuñu xam-xam legi nak xam-xam bobé nga xam neeku ci ñoom waye def nañ seen lobby ba tok ci ay poste yo xam mérité wuñ ko nañu koy feccalé nañu koy feccalé nañu koy feccalé nañu koy fexé ba mudd ko ba nga xam seen cuune seen xam-xam du feeñ mooy ndomba tànk ba titre ministre bi titre commissaire bi titre major bi nañ jël tek ko ci sa kaw ba mu diis gànd ba nga xam yi major bi ki commissaire bi kan yi fekk duñu dara affaire bi xam-xam na du ay titre xam-xam la du titre man moom yàlla da leen yàlla yàlla daf leen a daf leen a daf leen a baax ñoom ba seen émission du bëri tàbbi moo tax xam naa sama bopp man samay waxi bopp laay wax ut samay réseau bopp di ci wax seen télévision yi bu ma ngi tàbbi woon di ci wax ñaari émission laa fay wax dootuñu ma invité lu tax li ñuy ngun-ngun yi ak di ko nëbb wala xamuñu ko su moo ko waxee gis nga maître Ngagne Demba Touré mii duñu ko gaaw a invité waat de même waa Pastef duñu ko yónnee parce que lu leer nañ ba mel na jant njorloor lay génnee te li muy génn amul fenn fu mu mas a taxaw ci télévision ñu invité ko fa mu mu wax la muy wax ñu teg ko lu muy wax kenn du ko dindi parce que xam lay wax loolu la réew mi soxla soo même ci émission bi da ngay gis ne bu ñu duggee ci loo xam ne xamu ko daan li xamu bu ñu duggee ci loo xam ne domaine la boo xam ne amu ci xam-xam day am honnêteté intellectuelle ne li amu ci xam-xam moom Ngagne Demba Touré loolu mooy intellectuel mais réew moo xam ne lu ñëw nga wax ci te li ngay wax du tegu ci xam-xam ba noppi doo doo nangu ko la jubbant buñ gis nga démb Badara Gadiaga bi muy jéem a jubbanti Major Kandji gis nga ni ko Major Kandji arto sax saaxe ko bàyyiwu ko sax mu wax te pourtant Badara Gadiaga lim doon wax mooy dëgg waaye amul fit bi dem dem ba jeex dem jusqu'au bout da koy raay raayal ngañ dem ba moom du ñeexum ñebbe du ñeexum ñeexum ñebbe sax dafa saf waaye du ñeexum ñebbe kese ñeexum ñebbe la bu am dogu yàpp moom moom moom moom moom gars yi ñemewuñu lañ koy rek moom koo ci invité naan kan ak ñu ne diw ak diw boo accès ci ngañ ñu ñu la bul àggale damaa feebar ngañ moom fu ñu ko dégg ne damaa feebar annoncé malade kon mu ne lan Macky mi ngi doxantu si mbeddu Ndakaar yi ah day doxantu waaw parce que xam na li xew Macky Sall xam na li xew doxantu googu muy doxantu xam na lu xam na tax mu koy def de xam na bu baax li xew xam na li ko dal. xam na li ñu koy wax xam na li ñu ngun nguni loolu la bëgg a weddi moo tax muy génn di doxant dafa feebar de waaye il faut que mu génn wan nit ñi ne dara jotuma génn doxant xam na bu baax li xew Dakar gi tàkk lépp yàqu nit ñi di reyante ci say ay tappale jabar ci contre Ousmane Sonko ñu def lépp Ousmane Sonko yow Macky Sall ngay doxant yaa ngi doxantu mais Ousmane Sonko amul droit doxantu yaa ngi ci mbedd mi doxantu mais Ousmane Sonko doxantu foo ko teg réew mi takk nga ne nem waxu yooyu ci yàbbi wëcc nga bàyyi ba tey nga ne da ngay kon Sénégal daal léegi daal doxantu am na Sénégal kay bu doxante amoon roi du Maroc bi ñëw bu fekkante ne woon yow doxante ngay wax dëgg la mën ngaa doxante buuru Sénégal démb barki démb lu tax ñëwul ko parce que réew mi kenn du gan benn gan du fi ñëw ndax réew mi yàqu fépp ay tàkk a lakk oto yi police yi taj gendarmerie yi xeex bi nit ñi dee lacrymogène yi fetal yi dóor bal ki tànk lépp loolu moo tax kenn ñëwul ci réew mi nga génne doxante fay doxante tu es en train boo xam ne yow ak sa jabar yéen a yàq mi li fa tàkk yëpp yow Macky sa jabar ko yàq comme xam nga ne xam nañ ne da nga feebar am na loola jot rumeur yaa ngi commencé génn ni ngi commencé siiw te président bu dee ba feebar dañ ko war a constaté xam ne kii il plus apte à ce pays ut médecin assermenté ñu constaté ko wàcce ko jël réew mi jox ko président assemblée pour trois mois ñu organiser élection loolu ngay bañ rumeur boobu ngay bañ mu siiw moo tax ñu fexe ba nga jóg fexe ba takkal la ne la jógal wër Sénégal wala jógal wër ñu filmer la nga wan nit ñi jotu la fekk yaa ngi bëgg a il est pédant Kandji mineur Kandji oui euh, su que le am na nee na OPJ bi da interdire sa liberté pour nga exercer ko wala préfet bi su la naqaree nga def dégg maam euh, rep waaw nga def recours en excès de pouvoir tu te rends compte préfet bi mooy toog këram woote Alors, commissaire allez il faut aller assiéger chez Ousmane Sonko bu mu génn ah, ah commissaire kanji ne moom nee mi mineur Kandji nee na ko nee na nee na nee na nee na préfet bi mooy toog këram rek commissaire allez Ousmane Sonko bu mu génn këram de façon illimitée Ousmane Sonko génn ñu ne ko doy génn mais lu tax du a génn ah la ku leen jox ordre bi préfet bi moo ñu ko jox mais ordre bi c'est pas légal c'est illégal parce que lan la arrêté la wala lan te arrêté bi dafa war a am fu parce que dafa war am ay visa dafa war a décision de droit la war a nekk préfet bi mënu jokk def ko neex loolu Mansour Kandji du ci wax de mu ne. OPJ bi officier de police judiciaire enquêteur bi képp moom mooy fekk Ousmane Sonko wala X wala Y wala Déthié Fall wala ñu war a def seen ay réunion seen waa Yewwi Askan Wi wala dugg ci permanence su Déthié Fall mu leen du ngeen dugg seen permanence. ay waa yandaw Samba ay waa yandaw Samba Macky Sall moom ma ngay doxantu Marème ma ngay doxantu moom Kandji mi ngi dem fu neex keroog bañ ko fekkee këram moom di ko pamte pamte ne ko yoon moo la jël si dafa taxaw lànk na yoon du ma jël bind wala mu convoqué ma ak këyit bu ko yoon dafa tee ma génne fetal rey leen moom moom fenkat mineur kanji bi wax lii <laughs> réew mi réew mi naa feqi dañuy ay doomi ay doomu wengal ngemb lañu ay vrai doomi wengal ngemb lañ ku mas a gis mim réew te kenn du ko wax ngeen taxaw di ko seetaan ñu bàyyi ko muy wax ci télé bi parce que télé bi Youssou Ndour la Charles moom bala maa dee muy mel ne ab sikket ah Youssou Ndour ok moom suñu waa ji man kii di wax ay leçon morale Charles gis nga ñun Charles xaw ma Charles xaw ma foo jóge ak kuy say Charles ñun ay sénégalais pur jus lañu Charles sa saytaane gi lañ bëgg nga téye ko Charles sa wër-wërloo gi sa waxu saytaane sa wër fu naafeq yi Amadou Ba bi ngay liggéeyal toog ci télé di ko fenal ñun toppatoo wuñ loolu Charles ñi lay fay day jox alal ngay lekk ci télé di fen Charles respecté sénégalais yi sénégalais yi dañoo yaatu sénégalais yi dañoo hospitalier sénégalais yi dañoo am teranga sénégalais yi dañoo baax lool ba dañuy mujj xat ci seenum réew ab samba boye mooy jóge doo xam fu mu jóge ñëw dugg ci réew mi tudd Charles wala tudd yu kenn xamul màggee fi juddoo fi di làkki olof taxaw ci kaw télé yi di fontoo sénégalais yi te ko def fa seen dëkk maam yi fañ jóge cosaanoo fa boo fa demoon def ko fa ñu wàcce la doo tokki télé yi sénégal nag moom ay làppato lañ ku ñëw ñu xajal la ba xat xajal la ba ku ñëw rek tokki seen ko bopp yi ndax ñàkk fay fayda loolu moo am ci réew mi li ma wax moo am ci réew mi ñàkk nañu fayda ndax lan ku ñu gis def ko ne suñu bopp di yaatal naan Sénégal teraanga dëkk kërëb kërëb du teraanga man du man yooyu doxuma ci de ay réewum teraanga man góoma man sama kow kenn du ma joggi ba ma jëlee sama oto di seeti sama benn xarit bu nekk port un grand transitaire wala boog banque lañ doon dem xaw ak sama benn xarit ma am ku ko war a présenter dans le cadre d'un dossier man ñëw ci watu. Euh, avenue euh, avenue Rumbi rek gaare sama oto rek euh, pël bi jóge gën a ñëw mooy pël yooy di garder yoon yi ne ma doo fi gaare côté Nations Unies foofu ma ne ko du ma fi gaare lu tax mu ne parking bi parking privé la ma ko ku xam moom mu ne ma Nations Unies ko moom mu yéeg wàcc ñëw ne ma noo waaji dafa dem xam ma ne ko xëy mu ma fonto de fi laay mu jël seen sabo yooyu teg muy wàcc sama oto génn sabo bi sànni ndey sabo bi fële pour sama oto mu taxaw sama ko ma accéléré damm tànk yi pour taxaw gaare muy yuuxu coono kii man na ko gis nga xaar sama téléphone laa jël woo commissariat central gars yi ñëw aksi lan la ma leen damay gaar mu ne ma ne moo du ma fi gaare damay liggéey man moom liggéeyu fi lay toog di raxas daal di jël parti ñi téye ko boo ko joxul trois cent téeméer doo gaare loolu mooy liggéey ma nga daggee ca Guinée ci àllu Guinée bu xonk ba ñëw toog biir Ndakaar à deux pas du palais man ma nekk sénégalais cent pour cent néewu ma Guinée néewu ma fenn déewu ma Guinée di taxawàllu di liggéey jor sama oto ñëw taxaw ci parking boo xam ne c'est un parking public parce que parking bi mairie de Dakar moo ko moom ñoom ñoo ko doon fayeeku di sabo léegi bàyyi nañ ko politique boobu amatul les parkings sont libres mu ne moom parking bi dafa am ñu ko réservé au niveau de la mairie de ma gëm ko waaye bi ma na mom moom Nations Unies ñoo ko moom ma ko demal nga indil ma carte bi wone na ñom Nations Unies fay nañ parking bi mensuel au niveau de la municipalité de Dakar mu yéeg wacc ñew na ma waji ji dafa nekku fi ma ko comme nak mënoo prouver na parking bi c'est réservé fi lay taxaw parce que man je suis un légaliste comme amul preuve ne parking bi dañ ko réservé comme nim mako ko waxee ko damay gaare mu pousse ma pousse mu taxaw tànkam ma accéléré na a damm tànk mu daw taxaw leen nekk fa di wax di këré rek ma jël sama téléphone parce que wu ma jot wo commissaire bi auto police bi ne diri ñëw taxaw lu xew damay gaare expliqué ko li xew yëpp ñu du ay 14 heures la woon gars yi jàpp ko takkawam ne ko dugal ci biir oto police bi yóbbu commissariat mu fanaan fa vendredi samedi dimanche man leen du delloo leen ko Guinée parce que ay doomeraam lañ te ñun dañuy liggéey lii mu sañ def fii Dakar sañu ma ko def Conakry ndax respecté naa leen ñoom su ma fa demoon du ma ko def nit boo demee ci dëkku jàmm da nga leen respecté mën na ñëw ci digg xolu Ndakaaru fekk ca watu pale ba sénégalais yi di liggéey dama ko ñëw parking boo xam ne ñoo ko moom Ndakaar ñoo ko moom ma nekk sénégalais yow ngay ab guinéen ñëw téye parking bi ne ku fi gaare te joxu la xaalis du fi gaare ba tax ngay fen naan Nations Unies ko moom yi kenn xamul ma yóbbu la kaso ñetti fan ba mu génnee ba ma fa ñëwaatee fekk fa bu ma gisee patron daal di daw yàkkal ubbi parking bi ma gaare ma ne ko doomi raam nii rek boo ko deful man du ma sénégalais yooyu naan ay jëri ko ki ma àndaloon nga xam ne maag ñoom ñoo ànd ma di ko présenté koo xam ne dans le cadre d'un d'un dossier bu mag a ma di ko yóbbu ma nga costume xatar costume ba wow koŋ moom yor saagam mayit maa ngi costume ba wow koŋ ñu a dem waaye ba xuloo ba amee xeex ba ak waa ji polifuute bi damaa teg saag yaag costume ba génne sama cravate teg ko fee fas yéene defante ak moom sama xarit bi xam ne maa koy yóbbu kat di ko utal euh, relation di ko am ku ma ko booleel mu ne ma waaye nañ dem waay kii da lay tardé dafay yàq léegi maa doon yóbbu maa doon présenté léegi dematuma parce que seen yëf yi ñàkk ma ci rendez-vous bi ma lay utal yow moo lay yitteel nga ne naa bàyyi def li muy def parce que daf ñuy tardeel parce que yow rendez-vous amal solo lii moo tax réew mi dem du ngeen dara léegi maa la doon yóbbu foofu ñu yóbbu yóbbootuma la léegi man damay xeex xeex ba ñu takk waa ji yóbbu commissariat ma taal sama oto ne ko duggal dem ma dee leen dara

parce que seen dund gi dee sax gën dund làppata ngeen di dund dundi taalibe dundi wuy nit day suufe waaw dund dégg maam waaye nañu yaatal wuy ay teranga ñun sénégalais seen yëfu làppato yooyu man du ma làppato man nit laa da may respecté ma respecté la ba ma respecté lu ma jaay la sama bakkan doo ma fekk sama réew di ma wàcc ma ci vous vous rendez compte jógee Guinée ñëw di gasee parkingu Dakar yi di ci toog di ci encaissé cinq mille dix mille chaque jour nga ñibbi yóbbaale dix mille guinéen yow sénégalais bi yoroo dara moom mu am fit dugg ndakaaru ca watu pale ba parking vide yi ku ñëw gaare dem moom mu ne parking yi kenn du ko gaare ut ay saboom teg fa ku ko joxul téeméer doo gaare bu wàcc wàccaale cinq mille wala six mille bu ko defee at jënd immeuble ci ndakaaru waaw jënd immeuble ci ay tappale la koy teg parce que yéen nangu leen a liggéey dem Touba ki Tiwaawan ki màggale ki ziar mooy nekk seen bopp yi ak ñaanal ko bi yooyu ngeen gëm liggéeyu leen réew mi économie naa ngeen di kaas fan yi dañoo am fulla dañoo leen ci gën leen a am fulla nangu si nangu réew mi nangu espace yi teg seen i table fépp nangu commerce bi nangu parking yi téye lépp di encaissé di yóbbu Guinée muy dox jënd immeuble yi jënd Ndakaaru gépp parce que du ngeen nitu dara gëmu leen seen bopp bëggu leen dara ay sëriñ doon ngeen gëme kii ut àggena joo xam ne xamu leen fu mu féete cest surtout du ngeen xeex ko wax ma jaru ko noo garaawul noo baal ko seen wax yu ñàkk fayda yooyu bala maa dégg ñaar garaawul képp ku may wax garaawul man dama lay wax demal sa yoon man ay yooyu daa garaawul amul solo ak nu dara concept yooyu dama ko teel a xeex ci samay mbir man loolu loolu góomu ko ay ay tappale la loolu ay tappale la góomu ko voilà kon nañu jóg taxaw lii lépp nag bu ma koy wax pour xeex la li ñu war a xeex dafa bari li ñu war a xeex dafa bari xeex bi nag amul mu sedd amul mu dara na ñëpp jóg taxaw na ngeen bàyyi nekk mel ne waa Pastef conférence de presse guddeeg yu kenn xamul seen ñi fi ñàkk fayda yooyu yooyu kenn talatu leen nit ñëpp leen jéppi fi mu toll nii ñëpp a leen mare ñi ànd ak Ousmane Sonko yi ndax lan amuñu fit amuñu fulla amuñu fayda ay mboqat lañu dégg nga maam di wax bu ku ci wax yaa ngay lox loxi di yox yoxi ah jàmbaar góor gi mel ne Ousmane Sonko fi mu jaar ak yéen ak fi fi ko Sénégalais teg ak ni mu jàmbaaree ni mu taxawee ni mu xeexee ak fit bi nekk ci moom ak ni Guy Marius Sagna taxawee ngeen yox yoxi mel ne ay wànqi noor yoo war a rey ñu lemu koo ci gis da kii du moom seen làmmiñ yu rëy yi ñu yoroon waaye bu fitna ñëwee ak xeex dootoo ci xam ne kenn ñëpp daw dugg seen suuf raw la làqat GPS ki GPS ki ay responsable ki xëccooy poste ki député laa bëgg a nekk ki maire laa bëgg a nekk lu ne ngeen xëccoo ko waaye anañu doo ci dégg kenn mais ndokk ñun faalewuñu leen gëmuñu leen Ousmane Sonko la ñu gëm ak projet bi ak Guy Marius Sagna ñun ñoo ngi xeex bu ngeen ñëwee ñu xeex ñu ngi xeex bu ngeen ñëwul ñu xeex ñoo ngi xeex ñoo ngi terrain bi leen xaar ndax ñun ay sénégalais lañ ay patriote lañ ba ñu nekk patriote boobu xamuñu Ousmane Sonko ba ñu nekk patriote boobu Pastef amul ba ñu nekk patriote boobu xamuñu leen ñun dañoo judd ci patriotisme ndax dañoo am ay parents yu nekk ay patriote ñu nandal ñu ci patriote nandal ñu ci bëgg réew mi ndax réew mi dañ ko bëgg ndax réew mi mooy suñu réew boobu xamuñu koy Ousmane Sonko loolu moo ngi tax di xeex ñun ay parti taxuñoo xeex ay poste taxuñoo xeex ay ndomba tànk taxuñoo xeex ay bës taxuñoo xeex dañuy xeex buñ leen gisee dañuy xeex buñ leen gisul ndax projet bi moomu leen ko Ousmane Sonko moomu ko Sénégal la ko moom Sénégal gépp ko moom moo tax képp ku nekk Sénégal na nga jóg taxaw xeex bu dara sedd tey la samedi Macky ngi doxantu xam nga yéen lay kokkale dafa feebar de mais na nañ ko jógal pour wan nit ñi ne feebar ma ngay doxantu bi Dakar bu feeb bu doxantoo ba génn ba dugg génn leen ci guddi bu ñibbee këram jóg leen waa Dakar jóg leen fi mu jaar yëpp jóg leen nee na day génn di doxantu lu muy doxantu lan lay xool li ñu naqari yëpp moo ñu ko teg moo jabaram li mu def Ousmane Sonko ngeen taxaw di xoole jóg leen massivement génn mi ngi ci mbedd mi taxawaale gisuma ko yéen a ko wax ci sama live bi gisuma ko yéen a ma ne ngay doxantu parce que dégg nañu ne dafa feebar moo tax muy génn di wane ne feebar te dafa feebar bu paree ba dugg nañu génn guddi gi bu dara sedd tey bu dara sedd nañu bloqué autorité yi bloqué accès yi bloqué fépp bloqué corniche bi bloqué aéroport bi bloqué port bi bloqué aéroport yu yoof bi am na lu bari loo xam ne fa lay jaar seen jet privé yi alal yi ñuy sàcc milliards yëpp fa lay décoller aéroport Yoff bi dañ ko bloqué blocus fépp lu war a boy na boy lu war a tàkk na tàkk ku leen romb nag leen jox ay leçon de morale ay Badara Gadiaga ak ay Charles yooyu taxaw naan lii baax li baaxul toj leen bopp bi kos almet ci kawam taal ko mu tàkk ñun li ñuy xeex xam nañ ko réew mi du baax tant que ay nit deewul réew mi du baax tànk lépp nekkul dóom réew mi du baax lu dooméraam yi fi nekk di joxe ay leçon de morale te ñoom ñëpp ay truand la ñu nappaaje jéegi la ñu fi nekk ak dundee gi suñu alal ku leen fekk ku leen bu ñu dee ñoom ñëpp réew mi léegi mu baax su ko defee nag ñu toog pencoo li ki des mais négocier wuñu waxtaanuñu dégluwuñu kenn ku ñu naan lii baax naag bu leen toj ak bu leen yàq lépp ñun yàqu gi dañuy defar xamu leen luy yàq wallahi xamu leen luy yàq toj ay magasin dajj ay station bare ay route taal réew mi rey naafiq yi loolu du yàq loolu defar la xamu leen lu yàq yàq mooy li ki Sall yi def yàq mooy yéen doomi xaraam yi doomi njaalookat yi doomi wengal ngemb yi li ngeen def mooy yàq mooy aaki moo alalu réew mi pencoo ko sàcc ko jal ko ba mu kawe yéen képp ngeen lekk ko baadoole bu ci yor loxoom ngeen seppi ko damm ko sànni ci àll ba toj loxoom loolu mooy aw yàq li def mooy ngeen àll réew mi lekk ko sàcc ko nappaage seeni jeeg ku ci feebar ngeen jaga-jaga yóbbu Europe ngeen faji yéen ñëpp ci alalu doole réew mi yéen ñëpp yëgu li xaw suuf si ngeen alal ji ngeen poste yi seen i doom avions yi jet privé yi Dubaï Qatar lépp ngeen def ko te li ngeen koy defee alal réew mi ñëpp ci am àq ngeen xañ leen ko loolu mooy yàq loolu ngeen ne kenn du wax daañu daañu leen def lu bon doome xaral yi doon ñun yàq ñu dañuy defar toj bi pour defar la yéen nag yàq bi ngeen yàq moo gën a ndax yéen du ngeen toj waaye li ngeen toj mooy suñu alal ngeen di toj li ngeen toj mooy suñu suuf ngeen di toj sàcc ko toj suñu alal sàcc toj suñuy suuf sàcc toj suñuy jën sàcc géej gi toj suñuy napp sàcc jël suñuy jur sàcc jël suñu or toj ko yóbbu jël suñu jur ko toj ko yóbbu loolu mooy yàq doomi xaraam yi loolu mooy yàq ay milliardaire ngeen yéen ñëpp fu ngeen jëlee milliards suñu alal loolu mooy yàq yéen yéen ñu yàqal ñuy toj seen ndey ngeen naan ñun dañuy yàq kuñ ci jekku ci kaso bi daañu toj sa uy doomi xaraam yi ngeen doon ngeen naan yàq bu leen ma tax a saaga dañuy yàq ba ma déggati ci kenn ku xàmmele leen ku tokkite ne bi naan xale yi dañuy toj dañu yàq ki kër kër ku leen ko wax jël leen bi jox ma ñu préparé ko am naa équipe yoo xam ne bu ñu sa kër lañ lay fekk doomee xaraam yi ñun ñoo yàq wala yéen a leen yàq yàqu ñu dañuy defar te bala ngay defar boo fekkee ab yàqu-yàqu nga bëgg koo defar da koy màbbal toj ñun dañoo bëgg a tabax kenn du fekk miir bu lacc di waaj a daanu ab taabalu taabal bu ñeeñ ñeeñi tekk fa taabal bu taxawul ngeen di tek seen ciaga yi bu su nek tabal di kucci kucci ñu bëgg a tabaxaat tabax bu baax di ko màbbal toj ko ngeen dañuy yaq ci yàquñu tabax bi ngeen di njaaloo tabax bi ngeen di jël seen alal ji ngeen sàcc tabax bobu lañ bëgg mu màbb su mabbe ñu def fondation yu baax tabax bu muccu ayib bu teggu ci dëgg bu leer bo xamne ku rombo xamne nek ci biir bâtiment bi lepp weer lañ koy defale nga xamne du am lëndëm ku rombo xamne nek ci biir tabax bu leer nañ lañ bëgg tabax tabax bobu nak boko bëgge tabax il faut nga fekk tabax yu lëndëm yi nga dajj ko ñun dañuy toj pour defal doomi haram yaq yu yeen yéen yaq nak ndax yéenay doom yi xaraam yi ngeen doon commencé gis lu ni na leer bu leen am complexe bu leen am tiitange bu leen am xeeb seen bopp bu leen am lenn loo xam ne nit day toog ci télé bi wala mu toog fee di leen jox ay moral di leen jox ay leçon di leen wax ne lii moo baax lii baaxul li ngeen def rafet ne li rafetul ñi leen koy wax du ñu ay modèle ba dara gañe ko du modèle na leen wax kan moo koy jox xaalis di ko daggal billet avion muy tëdd ci hôtelu Paris yi dem ca fukkat ba di fanaan kafe na leen wax mu jëlee alal ba dara toog di wax di joxe moral na leen wax lu muy dundee fu mu ko jëlee lan mooy liggéeyam kan bu ngeen ko torpee Charles bu ngeen ko yóbboon CREI yi léegi gis fi mu jëlee xaalis ñi ko ko jox ñu ngi ci biir nguur gi di ko sàcc Youssou Ndour kazalik fa toog ñëpp fu malaat koo ci làmb mun laa wax lu muy def ba mën a dund train de vie yi ñooy oto yi seen jabar yi ni ñuy dundee alalu sàcc lañ koy dundee ànd ko politiciens yi moo tax ñu toog ci télé bi naan bu kenn toj bu ñu tojul lu ñu def ku bëgg a tabax fekk lu fënax lu boo ko tojul noo koy def ku fekk kër gu ràpp ba màggat nga bëgg koo tabaxaat koy da nga tabax da nga koy toj réew mi lépp ràpp dara baaxu ndax lépp ci ay tappale lañ ko teg te yéen yéen ko fi def mag ñi rek ak yéen ñi nekk télé di fen lépp la ñuy màbbal tabaxaat lu bees tàq ñun ndaw ñu ñoo koy def incha allahu rabbi loolu laa bëggoon ngeen xam ko xam ne Macky Sall jeexal na ay njabootam ña ngay reyante Amadou Ba mi ngi waaj a xuloo Mame Mbaye Niang Macky Mariam Faye Sall ko ngemm lu yàqu ci réew mi ma ko yàq li yàqu ci réew mi yëpp Mariam Faye Sall ko yàq moo téye réew mi sàcc alalu réew mi téye magistrature bi téye média yi téye homme d'affaires yi téye gendarmerie bi Moussa Fall police bi ma euh, ak Antoine Diome lépp ñooma waaye lépp jeex na armée bi nag laa doon wax sànq lafa nekk ci ay jafe-jafe buñ leen ko waxoon tey ji ngeen takk seen bagage génn réew mi jafe-jafe yi nekk ci armée bi ak jaxase ga fa Macky Sall jaxase yëkkati kii wàcce kee xañ kii lii yëkkati kee gendarmerie police jaxasoo ga nekk ak ni ko Macky Sall tase ak Marème Faye Sall ci kumba am ndey ak kumba amul ndey kii ma neex kee neexuma bu ko sénégalais yi xamoon tey ji réew mi

voilà moo tax ñu naan dañuy yàq xam nga amuñu xam-xam xamuñu dara li ñu xam mooy xaalis cocaïne drogue whisky jaga champagne casino carte xaalis sàcc loolu lañu xam njaaloo ñoom ñi amuñu xam-xam mais buñu ñu xamoon la théorie boo fale nit pour muy construire nga gis ne tabaxul day toj nooy def da ñëw yow la mu doon toj da nga koy toj loolu mooy la déconstruction de la déconstruction ñun foofu lañ toll waaw ah, xam naa ne ñu tubaab yooyu la déconstruction de la déconstruction ñun foofu lañ toll ñoom xamuñ amuñ yooyu xam-xam dañuy toj lépp tabaxat lépp ndax dañ leen tabaxloo woon ñuy toj toj sax mënuñu ko ni ñuy tojee sax baaxul ba ñu xoolee ñii dañuy toj ñu ne ñii seen toj bi sax setul kon dañuy toj li nga xam ne moom lañ leen doon toj loo toj lañ leen doon toj loo te toj ba baaxul ngir toj ko toj bu set pour tabaxaat lu set ci kaw loolu mooy la déconstruction de la déconstruction lu ñuy wax nag <laughs> dafa laaj xel ah, ñun suñuy wax léeg-léeg <laughs> dafa laaj nag dégg nga maam effort xitma li Sëriñ Tuubaa dafa dafa laaj nag nga euh, xel am koom waaw ah, nga dégg dégg-dégg la laaj voilà moo waaw dégg nga maam gatsa gatsa gi dafa mujj a nekk sàcc-sàcc ma ko juumoo gatsa gatsa gi dafa mujj nekk sàcc sàcc parce que da ngeen ne gatsa ñu ne gatsa ngeen sàcc ñu sàccaat leen waaw da ngeen ñoo sàcc ñu sàccaat leen ngeen gatsa ñu ñu gatsa leen mu loolu indi gatsa gatsa gi léegi ngeen sàccoon ñu ñu sàccaat leen ko ci kaw sàcc boo xam ne dalaa sàcc boo ko sàccee kay <laughs> lam la sàccoon nga nangu rek moo tax mu ne waaw buur maa ngi leen di xaar boobu ba léegi dégguma leen waa mbuur jóg leen na fépp tàkk na fépp boy ñu tabaxaat lépp man maa leen ko wax gañe nañu xeex bi on a gagné komba ñoom ña ngay xeex ña ngay xuloo ña ngay rayante jubóowuñu fi mu toll ni guddi ak bëccëg loolu xamu leen ko fi mu ni ñu dañoo gagné jekk ba noppi nag toog di nelaw dañoo war a jóg xeex jóg xeex jóg xeex maa ngi xool fii ci kanam teel samedi amul lay guddi gi na lépp tàkk jóg leen ñu xeex amul seddal amul teg ndax amuñu ndam de yéen a ngi ne teg amuñu ndam de Ousmane Sonko ma nga tëdd fa mu hôpital la nekk bu génnee këram lañ ko tëjaat du génn ku yëngatu ñu rey ku wax ñu dóor kenn du manifesté kenn du def dara parti politique opposition bi waaye yeewi askan wi seen siège Déthié Fall nee nañ ko dootoo dugg sa siège ku fa Ousmane Sonko nee nañu dugg gañe wuñu dara lenn donc lañ gañe mooy li fi amoon du fi amati bëlk démb ak wan nañ leen ne loolu ay fen la loolu moom dañ na li fi amoon du fi amati moom kenn du ko waxati xanaa kay li fi amoon naka la def ba yokk ko li fi amagul kay mooy lu ko raw waaye li fi amoon moom amaat na fi xanaa kay buuñaa bee des mooy fexe ba li fi amoon ñu def ko ba mu raw li fi amoon loolu laa leen di xaaree te defaguñu ko waaye li fi amoon mu def ñaan mi ngi koy def wóoruma ndax mi ngi koy def ndax yéena ko bind gi live bi xawma waaye bu fekkente ne mi ngi doxante moom day tàggatoo jeexal na takk génn leen ci guddi gi tey ak suba gannaaw suba Macky Sall abal ñu laa leen wax est-ce que loolu leer na ba ci kanam ñu ngi leen nuyu di leen ah, kon vidéo la bu yàgg bu date de deux ans gis nga kon doxante bi ñuy wax na mi koy def kon amul dañoo dégg ñoom xam nañ ne Macky Sall dafa feebar ñu dem uti vidéo bu yàgg génn ko pour nëbb li nga xam ne moom lañuy wax information bu ko wax kon doxantu boobu ñuy wax dafa doxantu kon amul man gisuma ko kon doxantu bu yàgg la ñu indi ko pour nax sénégalais yi di leen xamal ne Macky Sall dara jotu ko mi ngi nii génn di doxantu kon loolu amul loolu la mën a nekk parce que Macky Sall biñ liñ ma wax feebar bi nekk ci moom ñu ne génnal doxantu dana ma jaaxal su amee dana ma jaaxal lool lool lool lool mais c'est à vérifier mais gëwuma ne Macky Sall état de santé bi mu nekk dof ji mu da feebar bi nekk ci moom xel mi dem crise yi mu nekk jamono bi ñu ne Macky Sall nga doxal doxantu gëwuma ko su amee dina ma jaaxal waaye nag suba billahi tay samedi bi ci guddigi ak suba tambour batan amul taxaw Macky Sall tak ay bagaasam dem ndax paré na ci doyal na moudou dara ma ngay saaga Pape Malick Ndour ma koy ma ngay Mambay ma ngay saaga ñëpp doyal na ci seuk atandu dara yi fi dafa diis ci mom jog leen ñu gëssam ko mu dem jog leen ñu gëssam ko mu dem di ngeen ko bàyyi nag seen kër yi ba mu waat ba ñu ko bu mu ba ba waat nak mabrik seen kaw jog leen ñoom tit arme bi ngeen gis ñu génne ko bal yi door dóor yi ak xabar xabar ji casque yi oto yu rëy yëpp xam nga lu ngeen ci tàkk xam nga lu ngeen ci jàng toll ñi ngi dem seen taatu gaal yi ay njaq lu ñu amoon ci ay béjjën lu ñu amoon ci ay xànc lu ñu amoon ci ay càngat ñu ngi koy sangu lépp lu ñu amoon ci ay sox génn nañ ko lépp lu ñu amoon ci ay militaire ay autorité ay démonstration génn nañ seen lépp deseetuñu dara ndax nguur gu jeex la jóg leen taxaw fépp ñu xeex Ousmane Sonko newoon na bu ñu tàmbalee bu ñu bàyyi ñu tàmbalee bu ñu ndax pare ngeen ngeen na waaw ndax pare ngeen ngeen na waaw ndax ngeen ngeen waaw attention ña ngay guddi ak jaar ñi ngi France ñi ngi daw ñee nga Dubaï ñee nga dëkk bu tas la jóg leen ñu xeex rëkkati réew mi